dañuy dem nag seeti ki nga xamante ni mooy Malick Ndiaye Malick Ndiaye maa ngi lay nuyu. boo nee Malick Ndiaye da ngay egg si Malick Ndiaye 37 pour. 37 journaliste jeune talanga. a doon waaye da ngay egg si Malick dof de wér ah loolu leer na. waaw gis nga borom Pikine waaw maa ngi nii de. a ngay préparé combat bi. waaw combat bi waaw waa Pikine la. combat bi ñun dañuy sant yàlla du julli ci yeneen bi. waaw du ñaanal suñu waa ñaanu ñaari waajur fañ tëdd sa alaxira yàlla yërëm leen te xaar leen ajana ak bépp yaay boo xamante ne génn na àdduna ak gépp gépp bépp bépp mboolum jullit boo xam ne maa ñàkk nga yaay wala nga ñàkk papa wala nga ñàkk papa ak yaay maa ngi lay ñaanal yàlla leen yàlla yërëm te xaar leen ajana te jégal leen waaw ci ajana firdawsi yi waaw mbër Ama Baldé Modou mu nekk combat bi nga xamante ni combat bu Sénégal yëpp di xaar hmm. ma lay wax ne yéen ana naka ngay waajalee combat bi ak nan nga waajalee seen mbër ndax parce que man nu ma waajale sama combat tey boo duggee koñu Malick Ndiaye 37 fu rek looy jàkkaar lool da ngay jàkkaarloo photo Ama Baldé fii jàkkaarloo photo Ama Baldé photo yi kay ñu ngi défilé fu ne yaa ngi ko fay jàkkaarloo kon man man damaa commencé man féete sama victoire man dama ak sama waa koñ te dara xewagul voilà na ci ñu xaalis dajale nañ soxlawuñu kenn kuñ jox xaalis ñun ñoo dajale suñu xaalis ñun man ak samay booy ñoo dajale suñuy xaalis defar defar def ay ñun Modou go ay Modou Golo comprend pas Vieux Sow moo defar tableau yi ñoo ngi koy sant di ko gërëm Vieux saw di sant jabaram yaram comprend pas yow moo defar tableau yi yëpp moo na la samaay ñoo ko génne ñun ñëpp mën na la samaay financé ku nekk génne sa weccit ñu ñëw defar suñuy tableau ndax Ama bale ndax dafa doon booy boo xamante ne da koo jar ndax parce que rakk ju man rakk la rakk ju ma respecté la raq ju ma jox cër la te man ku ma respecté jox ma cër rek xam maay kan rek man kooku ma mën a gaañ yaa ngi dégg maa yow Ama Baldé daal bisam man sama bis la yaa ngi dégg maa yow man préparé naa man Malick Ndiaye 37 fou ak waa Afia yëpp ak lu ko delee buntu Pikine ba terminus comme renfa yow instant bi nii man ñu man ñun ñun ñun dañuy feete suñu victoire ndax parce que ñoo ngi nii defar suñu tob la ndax Ama Baldé comme renfa yow voilà Ama bu soxlaa nag ñëppay ñàkk barke alxuraane karim. kon daal Ama bu soxlaa mel na ni ñëppay ñàkk ba tax ne yéen moom pare ngeen fépp fépp fépp ma lay wax ana naka ngeen di conseiller seen mbër ci combat bi. suñu mbër luñ koy yebee suñu mbër ñun suñu xel dafa dal dal ci moom Ama xam mooy kan neex a supporter boo amee crise cardiaque déggoo li ma la de da ngay mën a supporter Ama Baldé ndax parce que du la teg crise cardiaque yaa def ma yow doon na booy mbër moo xamante ne bu fekkee fit am na fit. bu fekkee jom am na jom bu fekkee ngor ngoroŋ ci moom su fekkee fulaak fayda fulaak fayda moo ngi ci moom bu fekkee sutura moo ngi ci moom man ma man Ama Baldé sama raq la dañuy toog di waxtaan man lu nekk ci Ama yëpp man xam naa ko comprends fa yow man du ma maral kenn taatam yaa ngi dégg fa yow mbër bu yaakaar ne muy Ama Baldé di keneen keneen man maa Malick Ndiaye 37 fu moom maral la sa taat yow da ngay wax lu la neex. yaa xam mbër boo mënti doon mais moo ma woon ngor. wan ma fulla wan ma fayda yaa dafa respecté ma bëgg ma ma xam ne dama booy bi respecté na ma bëgg na ma du ma def lu nit mën la sama bisam man dama ciy takk rib maak képp ku ma xam ñoom bisam ñun préparé ñun déggoo lu ma wax ñun xaaruñu la cinq ñun dañuy féete suñu victoire ndax xam nañ lu cinq la cinq la cinq si kàttanu yàlla xam naa ne ndam li dina dugg si biir Pikine. daal daan ngeen ba pare la cinq da ngeen di dem jëli rek ñëw. déggoo li ma la wax de ñun dañoo daan ba pare xam nga la moo ci des. xol doon benn xol yi doon benn yéene yi doon benn ñu jël loolu yëpp muy muy dëgg ci ñun ñu jël ko jébal ko Ama Baldé gunge ko mu duma Modou Lo daan ko Ama Baldé du Lac de Guiers Ama Baldé du Eumeu Sène Ama Baldé du mbër yi Modou Lo bëri ay Issa Pouye ay yooyu non non non non non xam nga dañuy jéem a jox favori Modou Lo ci xeex Modou Lo xam nañ la muy bëre Modou Lo ci ruux ceerax lay bëre. mu Lo làmb ji xam nañ xam nañ la muy la mu enterné ci làmb ji lé moom loolu lépp loo xamante ne moo ngi koy gontoo moo ngi koy gontoo di ko yendoo di ko fanaanoo ñun waa Pikine xam nañ lépp ndax parce que combat bi dañoo jaral ñun ñu benn faay faay yëpp la ñuy topp wala déggoo ma. mais nag fan yii am na ay écho yu ñu xaw a ko waa ñu buggoon xam ana mbër parce que ñu ngi dégg ci ay écho que ni mbër dafa feebar wala dafa am ay blessure léegi yooyu noonu la nga ñu si mën a àndil ci ay leeral. loolu ku ko wax da ngay wax lu la neex gis doomu jàmbur Ama Baldé doomu jàmbur la nañ ko ñaanal te dafa doon doom xamante ne doom ji jara ñaanal la yaa dégg yow Ama Baldé nañ ko ñaanal jàmm kooku dafa préparé combat cinq ans dund lu métti yaa ngi dégg fu ak yow jaar fu metti kenn ñëw ko jàppale ko na ko am am amal li man maa la ko dimbalee mu muñ lépp boole loolu lépp ba lii taxaw kon ba ne la cinq mooy combat bi kon am na ñoo xamante ne waxu mbedd bu ko gëm acep staff Ama da ngaa gis ku génn ne Ama dafa blessé ñun mbër Pikine yi da ngaa dégg gis benn mbër bu génn ne Ama dafa blessé non même pas mais xamal du ñàkkkat yi bu heure bu combat amee di nga dégg toujours ay rumeur que mbër lii moo genre lii moo ko dal genre. loolu mënu mënul ndax heure bu combat amee di dégg yenn rumeur mais yow mi nga xamante ni yow ba Pikine seesi la. Mhm. yow mi nga ko ñu ama seesi la ko ndox yow yaa ñu mën a jox ay leeral lu leer que ñu mën a sëkkandiku ci yow ci li ngay wax que mbër il va très bien. laa la toujours très bien. je compris ah je compris il faut très bien Ama nañ ko ñaanal jàmm dara jotu ko yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla bu cet dugg ci combat bi lu des ci combat bi gis nga làmmiñ baaxul làmmin baaxul ama ñun ñii sax mënuñu ko gis te waa Pikine ngay waxal te man ak moom gis nga ni ñu mel mais combat bi moo toll foofu non non non non non non ñun dañoo jaral combat bi magu pikin yépp a jug te combat bi ñun ay ñun ñun ay ñun ñun ay mbër lañ. ñun suñu xam-xam ku ko xeeb am na yeneen mbër yoo xamante ne dëkkuñu pikin dañuy jël di jëriñoo suñu xam-xam te kenn du ko yëg loolu tax nit kenn du ko xeeb ak ndax yàlla lu mu may daa yaatu. yaa ngi def maa ak yow Ama Baldé moom si jàmm dara dalu ko yaa ngi def maa yow nan ko ñaanal jàmm la cinq Modou fu mu mën a ne ah Modou Lo mosuñu gis mbër bu ko duma Ama dina ko duma dina ko daan. Euh, passeport bi mooy passeport Modou ah bu ko defee mu ñëw jël si ko ah. jël si ko ak quarante am xam nañ ko de dud loo xam nañ ko bu baax quatre-vingt-cinq la. li day xaar rek amaa ko gën a ñeme nañ dem bàmmeel bu ñëwee nga ko quarante am mi ngi nii na ko jël si. mu ñëw jël si quarante dem a passeport am quoi. bu nekkee nañ dem bàmmeel rek booy beeg ko gën a ñeme ñun pare nañ lépp. waaye li fële ko jëlee. moom xam na fi ñu ko jëlee. Ah. waaw saa waay am ngeen fit loolu dara ama la de pël bi. ah, ah. kon baax na.